Djibril Ba ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax. yow responsable politique nga Parcelles Assainies. waaw bokk tamit ci kàngamu parti Alliance pour la République nekk rapporteur général école du parti et que suñu comité électoral Parcelles Assainies on l'a fait de manière inclusive boo ko wale ci bokk ci ñu coordonnateur comité électoraux bi parce que dañ ko yaatal euh, ñu def un pool de coordonnateurs de comité électoraux yoo xam ne dañ ci boole suñu parti allié yi. candidat Amadou Ba Parcelles Assainies lay voté waaye candidat boobule di Amadou Ba dafa mel ni ñëpp nanguluñu ko ngir mu mën a nekk candidat bu alliance pour la république wala sax coalition benn Bokk Yaakaar ndax ay xët-xët la ñuy nemmeeku ci li nga xam ne moo jëm ci biir coalition bi euh, lan mooy ay sens tey Amadou Ba ci élection bi. waaw damay wax ne ne rek affaire tànneef bi moom weesu nañ parce que euh, njiitu réew mi muy suñu njiitu coalition Benno Bokk Yaakaar son excellence de président Macky Sall moom moo ñu joxoñ Amadou Ba euh, ñu tànn ko nag ci processus boo xam ne ne processus bu cohérent la processus bu démocratique la bu transparent et euh, président dénkoon ko doyen Moustapha Niass waaye critères yi ñuy tegoon yëpp wane woon nañu ne Amadou Ba mooy tànneef bu gën pour suñu parti tànneef bu gën Sénégal kon loolu wax boobu moom wax bu yàqu la wax bu ñu weesu li ñuy wax kay mooy tey jafe-jafe bu ñu gën a am ci coalition euh, Benno Bokk Yaakaar ci alliance pour la république ñi nga xam ne ne bokkoon nañ ci jongante boobu bi nga xam ne ne président woote woon na ko wax ne képp ki nga xam ne bëgg nga nekk candidat na nga yëkkati loxo ñu teg ay critères Amadou euh, jël raw gàddu bi ci anam bu leer nañ ñooñu nag fu mu ne nii ñoom ñoo dese xol bu tàng ñoo dese kiñaan ñoom ñoo defee euh, loolu jafe-jafe bi ci biir alliance pour la république lañ ko gën a amee waaye di ci coalition parce que yi nga xam ne ne ñoo composé coalition Benno Bokk Yaakaar yëpp nangu nañu pare nañu ngi président Amadou Ba pour mu nekk le cinquième président de la di fàttali ne rek Amadou jaar-jaar bi nga xam ne ne yàlla def na ko mu jaar ko muy un d'état grand commis de l'état Euh, wax dëgg yàlla mu nekk nit koo xam ne nitu jàmm la nitu waxtaan la euh, tànneef bi nga xam ne ne tànneef nañ ko ko nekkoon na une forte demande sociale parce que tamit boo waxtaanoon ak Sénégalais yi nga waxtaan ak ak kilifa yi diine yi kilifa aada yi Sénégalais lambda yi ñoom ñëpp ñu doon wax ne boo xam ne Sénégal bu la Sénégal boo xam ne ne dinañu mën a jiitu réew mi muy président Macky liggéey na ko fa ñu mën koo téye baral ko. def lu gën loolu kon Amadou war na moom moo war a mën a nekk tànneef boo xam ne ni dina mën a yeggali liggéey bi nga xam ne ni sumboon nañ ko ndaxte moom ci liggéey boobu def ci rôle bu am solo parce que ci douze ans magistère président de la République Amadou Ba euh, président de la République wóolu woon na ko dénk ko ministère des finances dénk ko waat encore ministère des affaires étrangères dénk ko primature ñëw tànnaat ko mu nekk candidat coalition Benno Bokk Yaakaar kon njiitu réew mi nga xam ne ni moo ñu ko joxoj ñun ñi nga xam ne ni ñu bokk ci alliance pour la République bokk ci Benno Bokk Yaakaar dañoo war a gunge Amadou Ba mu nekk cinquième président de loolu rek mooy suñu wareef lu ñu def lu dul loolu ah wàcc lu ñu yor te nag gunge président boobu jàppale président Amadou Ba nekk cinquième président de la République loolu njëriñu Sénégal la njëriñu askanu Séné euh, peuple sénégalais bi njëriñu ministre ak DG yi nga xam ne ne ah euh, vraiment président wóolu wóolu dafa cëraleen leen ñu am fa li nga xam ne ne ñeneen camarades yi nga xam ne ne gunge woon nañ président xeex xeex bi depuis deux mille ba léegi ah yàlla joxul leen loolu waaye terewul ñu war a mànkoo wax na sax wuti ndam bi jël ndam bi téye ndam li mais ñuy wax ni président de la république Macky Sall moom dafa lâché ki nga xam ni moo di candidat benn Bokk Yaakaar Amadou Ba. xam nga loolu pour man wax bu yàqu la ndaxte ku xam président de la république Macky xool jaar-jaar bi nga xam ne ne jaar na ko mu si biiroon fii benn injustice biir parti bi mu nekkoon muy parti démocratique sénégalais ay sénégalais yu mel ni ñun yi nga xam ne ne ñu euh, injustice bëgguñu euh, nootaale bëgguñu tooñ euh, ñu jógoon gunge ko ah. Euh, wax ko créer sa parti beral sa daara ñu gunge la fii ñetti at ñu gunge moom mi nga xam ne nekkoon na fi euh, directeur général euh, ci juróomi at premier ministre premier ministre président assemblée sos partem ci ñetti at yàlla dimbali ko mu jël nguur bi nekk président de la république ku xam président Macky wax na ko waxaat ko ci opposition bu koy tiiñaal di ko wax ne woy dafa bëgg def troisième mandat mu leen di wax ne ne man sama kàddu nitu kàddu laa damay saagul sama kàddu kon yaakaaruma président bi nga xam ne ne ñun xam nañ ko topp ko pendant juróomi at dina dem ba fa muy jeexalee mandat am joxoñ nit ñëpp wax ñun ñëpp nañ ko topp parce que tànnee fa mooy Amadou Ba dañu ki nga xam ne ne tànnoon na ko muy coalition euh, pour coalition Benno Bokk Yaakaar ah ba campagne bi démarré président di delluwaat ginnaaw ci euh, wax boobu président du façon euh, Macky du façon nit boobu dama jàpp ne loolu waxu yàq la waxu jiixi jaaxaa la ñi nga xam ne ne ne tey euh, dañoo tiit dañoo ragal suñu candidat bi parce que suñu candidat tey sooy xool dix neuf candidats yi nga xam ne ñooy jongante wax dëgg yàlla profil am yemul ak profilu kenn te wax dëgg yàlla sénégalais yi dañu koo naw ci dalam ci teeyam ci yaram ci tegginam ah, ak ci wet kilifa surtout kilifa aada yi ak kilifa diine yi Amadou Ba kenn xameewu ko euh, yenn euh, coow yi kenn xameewu ko yenn jiixi jaaxaay kenn déggu ko comme liy tubaab bi dox muy traîner ay casserole Amadou Ba daal euh, Sénégal yi ñoom ñoo ko bëggal seen bopp ndax yari yaram ndax tegginam kon kooku ki nga xam ne ne président tànnal na ko ko muy candidat boo xam ne si suñu gis-gis candidat bu gën ci candidat yi ah dama yaakaar ni ni gars yi dañoo tiit rek commencé di sos di bëgg a yàq euh, xajamal euh, wala di teewal xelu Sénégalais yi pour que ñu bañ a voter mais lu ma gëm mooy su demee ci élection yi su fekkente ne tey si ni jiitu parti woowaat na responsable yi nga xam ne ne biir APR parce que jafe-jafe ci biir APR lañ ko amee euh, woowaat leen waxaat leen ñaaxaat leen joxaat leen ndigal ñu gën a jàppale te man sax lu may ñaan mooy président de la moom ci foofu justement foofu laa doon ñëw sax est-ce que tey président de la république waruta mën a wax ñi nga xam ni ñoo di waa APR sax ñoom ñëpp ñu teg seen gët ci ki nga xam ni moom moo di amadu Ba est-ce que tey warul yëkkati kàddu bi. waaw man de sama gis-gis loolu la ñuy sax ci suñu kilifa muy président de la république dinañ ko ko ñaan lu ma wax sax mu ñaax leen mais dañoo bëgg président de la république moom mu wàcce sax sur le président Amadou Ba si terrain bi bu boobaa nag yëpp ñu nga xam ne ni dañu doon fikki sakka wala dañu doon laam-laame ndax président euh, mu ngi euh, continuer di tànn euh, Amadou Ba ba léegi wax boobu jeex ñun de gëm nañu ne bu fekkee président de la république li ko ñaan wàcc ci terrain bi bu ngi Amadou Ba dañu yaakaar ne ne loolu de bu ko defee élection yi ak opposition bii bi nga xam ne ne taxawuñu yaakaar naa ni Amadou Ba dina gagné élection yi dès le premier tour kon nag ñun ñu ngi sàkku di ko wax solennellement fii ci rajo bi ñu ngi ñaan président de la république non seulement mu digal ministre bi ak DG yi nga xam ne dañuy traîner des pieds ñu gunge a Amadou Ba ci campagne bi ñu ngi sàkku ci njiitu réew bi moom it mu wàcc ci campagne bi gunge Amadou Ba yi teg ci bët yi militants yi teg ci bët yi waaye ñuy wax ne rek ah, suuf kenn du ko teree euh, euh, feeñ ndaxte Amadou Ba Euh, comme nu ma ko doon waxee sànq ci tubaab c'était une forte demande sociale sénégalais yi ñi nga xam ne ni ay responsable kilifa diine yi kilifa aada yi ñoom ñoo waxoon yëpp di leen dégg ni su fekkente ne président de la République na Amadou Ba ah moom mooy gën ci ëllëgu Sénégal Sénégalu jàmm Sénégalu euh, stabilité euh, ndaxte réeréwu leen biir ne yàggatul tuuti at bi Sénégal dina commencer exploiter gaz bi ak pétrole loolu nag dafa indi euh, des lobbies des force tapis dans l'ombre ñu bëgg a jiixi jaaxe yàq Sénégal indi fi coow indi fi violence ñu tegee seen loxo ci koom-koom boobu nga xam ne ne euh, Sénégal am na moo tax suñu candidat bu dee xool ci campagne bi euh, slogan campagne am dafa wax bu yaatu ci jàmm ju mat sëkk Euh, euh, loolu lay woote euh, naataange boo xam ne ne bu yaatu la ne ci jàmm joo xam ne day mat sëkk yàgg loolu lay seeni candidat di woote muy candidat Amadou Ba te wax dëgg yàlla su ko Sénégal yi joxe seen baat ba dénk ko réew mi yaakaar naa ni ëllëgu Sénégal dina nekk ëllëg boo xam ne ni ëllëg bu mucc ayib la président Amadou Ba wax na ko je serai le président de l'emploi massif des jeunes mu ne su fekkente ne euh, Sénégalais yi wóolu nañ ko ba léegi réew bi mu ne ah affaire xëyu ndaw yi dina ci taxaw bu baax a baax dina taxaw aussi tamit ci pouvoir d'achat ménage yi mooy ah, jafe-jafe yi nga xam ne ne Sénégalais yi ñu ngi koy am dina ci taxaw bu baax a baax dina taxaw aussi que euh, Sénégal nekk dëkku jàmm dëkk bu stable dëkk boo xam ne ne lay doon waaye dëkku jàmm bu bu bu ju sëkk lay doon yàgg saawaan baawaan juróomi fan ci li nga xam ni moo jëm ci campagne bi euh, tey ni nga koy waxee ni dafa mel ni de yéen am ngeen confiance lool mais ci kanam am ngeen fi opposition bi daanaka euh, ñu ngi taxaw bu baax itam yow rassuré nga walla am nga confiance bu baax waaw xam nga tey suñuy xool opposition bu ñuy gis dañuy gis opposition boo xam ne ni ko suñu candidat bi waxee une opposition insouciante te opposition bi boo ko xoolee escroquerie politique moo fa gën a bëri parce que tey li ngay xool benn coalition rek laay jox coalition Diomaye président boo fa séenee ay yi nga xam ne ne ñoo nekkoon ay premier ministre Macky Sall ñu nekk ay comptable ci bilan bi nga xam ne ni moom la président bàyyi fii ay ministre ay DG yoo xam ne ne daw nañu làq foofu loolu damay gis ne ne affaire explique escroquerie euh, politique moo fi nekk dama bëgg a wax ne ne nit da ngay gore gore tamit su fekkee ñun dañuy def politique dañuy war a ñaax wan Sénégalais yi par les exemples du ci ay wax rek ay jëf la dañu war a nekk ay ñoo xam ne ne en toute circonstance dañu war a gore dañu war a tamit cohérent ci suñuy démarche parce que tey mënoo ngunge nguur pendant ay euh, fukki at ak ñaar ba nguur gi di waaj a jeex nga beddee ko nga ne maa ngi dem opposition damay jox kenn bu mel ne ne Mary Teuw Niane il est un couturier des faits ay gis nañ ko Euh, accompagné woon nañu régime parti socialiste bu muy jeex bu bàyyi ko dem laqatu ci PDS PDS muy ko ba bu muy dee euh, di waaja a daanu mu bàyyi ko ñëw ci Macky Sall te yaakaar na ni nguur gi ngi waaj a yeex président Macky Sall bu ngi dem na na PDS ko daw laqatu ci jamaay président dama yaakaar ne ñi nga xam ne dañu doon wax ne ne tey dañuy xeex système tey ah euh, loolu est-ce que politique loolu nga ñëw accueillir si sa coalition ñi nga xam ne ay premier ministre ñu nekkoon ci mandat bi ñii sax wàcceguñu sax nga nga accueillir leen ay ministre ay DG dama ne li ñu respecter Sénégalais yi li ñu nawloog Sénégalais yi. parce que tamit politique dañ ko war a boo def tamit da ngay làmboo ak ay ak ay melokaat waaye tamit da nga war a gore parce que tamit nit loolu lañ ñu jàngal moo tax suñu candidat dafa wax ne ni bu ñu jëlaatee nguur bi il ñu revenir ci ay valeur yoo xam ne ne. Euh, mhm. loolu la ñu xamee woon Sénégalais mooy lan ñu wekk si ni kilifa diine mag yi am yërmande ci xale yi. ñu libéré Ousmane Sonko ak Diomaye amoo ci benn problème. nga ne. ñu libéré Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye candidat Diomaye président amoo ci problème yow. xam nga ñun ay républicain yi ñun amuñu benn problème su fekkente ne le droit il est benn problème su fekkee justice bi dafa jël ay dogal yoo xam ne ne c'est pour. l'apaisement du climat social muy jàmm am réew mi dal man amu ci problème bi loolu la ñuy sàkku mm-hmm. euh, Sénégal nekk ci jàmm parce que fitna jurul jàmm parce que julli ak woor sax jaamu yàlla balaa nga ko mën a tal sax réew mi nekk ci jàmm lépp li nga xam ne day indi jàmm ci réew mi ñun de ah dañ koy rafet dañ ci ñaax Sénégalais yi ñu moytu fitna bi parce que tamit fitna baaxul ci dara Djibril Ba ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni nga nangoo tontu suñuy laaj. man maa leen di sant di leen gërëm bu ngeen ma permettre aussi ma àddu ci situation politique bi wax ci samit sama candidat boo xam ne nii am naa yaakaar ne mooy nekk président Amadou Ba cinquième président de la République Sénégal pour ëllëgu Sénégal pour naat ëllëgu Sénégal lu jàmm ak ëllëgu Sénégal teraanga. di fàttali ne responsable politique nga APR ca diwaanu Parcelles Assainies. jërëjëf Parcelles Assainies. jërëjëf Parcelles Assainies.